fait divers la quoi. waaye mais bi ñuy bi may gëstu ci mbir mi. dafa am ñaari faits yi nga xam ne dafa attiré attention ñaari faits yooyu benn bi mooy lan sànq soxna si dafa wax lu am solo mais dañ ko éclipsé éluder daal di jàll. Mm-hmm. muy les réquisitions téléphoniques. ci ak fii. ba léegi nit ñi demee ko ci loolu. Sénégalais yi en fait principale question bi nga xam ne parce que ci wàllu procédure ci wàllu procédure gis nga tuuma bu amee mu am une complicité supposée wala avérée enquêteur bi Ami Collé ak Pape Sané lien bi lien boobu mooy lan mooy wax li ñuy wax téléphone. li leen boole li leen boole. mais dans cette affaire là am nga question bu ñu war a poser pourquoi le procureur n'a jamais voulu. que réquisition bi nga xam ne gendarmerie defoon na ko les opérateurs traité ko parce que réquisition il y eu def nañu réquisition mais pourquoi ci week bi ñu gaaw bande braque les enquêteurs na leen indi leen indi affaire bi bàyyi leen réquisition gis nga mbir bu ñu buggee mu leer amul ay parti pris amul ay nëbb François dafa wax sànq ni que du ñu jalgati mbir mi parce que Adji Sarr tudd Ousmane Sonko la jotee mais bu ñu bëggoon mbir mi leer dès le départ mooy benn ñii nga xam ne ñoo dox ci moment wu couvre-feu alors que yoon moo ko tere ñoom keroog ba ñu duggee brigade section de recherche waruñu fa woon génn. pour non pour non respect du couvre-feu. bu ñu bàyyi woon réquisition téléphonique yi egg à leur terme te kat egg na xëy na dañ ko génnewul mais egg na parce que léegi Sénégal. service de sécurité yi muy police sax gendarmerie yàlla may na leen ñu am ay plateforme cyber sécurité ak cyber criminalité muy yow mii muy man mii muy Yves muy keneen ak keneen. la ñu bëgg a xam ci yow alaa la minute qui suit dañ koy xam ci yow loolu mooy premier cas bi deuxième ñëpp am ngeen ay compte dans les réseaux sociaux. génn ci Facebook kan moo mës a dégg ni compte Facebook. supprimé na ko. supprimer comme. waaw maanaam tey nga bëgg a génn Facebook ne bëggatuma Facebook damay damay génn. nga ko nga supprimer sa compte carrément quoi mën nga désactiver sa compte. mais pas supprimer. mais ah, pas nga ko désactiver. mais doo Facebook aussi bu ñu la bëggee désactiver dañu lay désactiver. dañu lay waaw mais comment ça se fait que pour le cas de Adji Sarr en l'espace de 48 heures elle était devenue inexistante sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. wala rek ko kooku borom doole rek moo mun a effacer identité nit si réseaux sociaux yi en 48 de taille la ah. donc tey ñu koy doog a dégg de. ci ah, non non parce que man c' est des questions que je koy ñu ngi koy dama doon dama doon maa ci doon gëstu mais amu ma woon réponse mm-hmm. te xam naa ni du ma am réponse parce que maa ngi laajte ba bëgg léegi duñ ma koy wax. Mm-hmm. il faut nag qu'on en parle. que légitimement que mbir mi dañ ko bëgg a jël def ko un débat national mm-hmm. il faut que nag nationalement ñu wax sénégalais yi mbir mi nan ak nan la tëdde mm-hmm. ku ci nekk nag sa xel yow nga jàpp ndax lii mun na nekk wala mënul nekk mm-hmm. mais légitimement légitimement on doit se poser des questions pourquoi troisième mbir bi fi may ñëwee fi may jeexalee procédure de protection de demande de protection soo ko dugalee ministère de l'intérieur enquête bi nga xam ne moom nga service de protection mooy biit brigade d'intervention polyvalente di def ndax les service de renseignement balaa ñu naan Abi Collé yelloo na waaw wala déet ku ko protéger mhm. ay procédure booboo gudd hmm. procédure booboo gudd d'accord non ak a gudd. waaye moom ci quarante huit nañ ko jox protection ñaari élément bi voiture de protection ak benn 4 x bu muy déplacé wu. moom Adji Sarr. waaw ah. tout ça aux frais du contribuable ñaata xale nañ fi violé. looloo ñaata nit nañ fi menacé. man maa ngi nii dans le cadre de mon boulot agressé nañ ma ba yàq sama bëgg a xawoon yàq sama bët oh. mosuñu ma jox protection sama dossier ba léegi nii ñu mu avancé mm-hmm. ba léegi nii nanguwuñu mu avancé mm-hmm. donc dafa nekk comme ni ko ni ko ni ko yenn activistes yi di waxee dëkk ku ma am ndey ak ku ma amul ndey non dëkk maam Mamadou la ak Mamoudou <laughs> d'accord alors merci ah. merci beaucoup euh, ñu ngi lay gërëmaa ah. am nañu image du jour mbay nga ne. man nii rek fan yii dañ maa agressé mooy affaire boobu euh, affaire xeex première. xeex yow da doon taxawaal ñu agressé la mbay. non non <laughs> non da nga taxawaal ñu agressé la mbay. affaire góor ak foo nekkoon foo nekkoon ba ñu agressé la ba ñu ñëw sama téléphone foo ah, nekkoon si kaw tali bi. da nga doon dox. du taxawaalu. non non ah xam nga yàgg image du jour mooy euh, génnu kii di.